ñu ay sénégalais te am nañu passeport diplomatique ba tey ci biir journal bii di réew mi quotidien Seydi Gassama nee na passeport diplomatique yeeg ni nga xam ne moom lañ ne ñooy waa la ñu war a jox passeport diplomatique image su Sénégal jamono ji yàqu na yaxeet yéen gi di réew mi quotidien xëy wax ci lu jëm ci wàllum trafic passeport diplomatique ak kilifa bu yaana mar ak Simon ñooñu nag procureur dafa sàkku ñu daal di ciy ubbi ab information judiciaire ba pare daal leen di mandat dépôt yéen kaay gi ne na juge deuxième cabinet bi nga xam ne moo yor dossier bi démb jotut a ki nga xam ne mooy Simon yéen kaay gi ne na la ko waral bokk na ci juge deuxième cabinet dafa jël enquête bi nga xam ne dig def na ko ngir nag daal di koy gëstu yéen kaay gi di libération nee na am na fukki mbir yoo xam ne moom la ñu fas yéene toppee kilifa bu yaana mar ak Simon yéen kaay gi na lu jëm ci wàllum association de malfaiteurs lëngoo di def ay ñaawteef lu jëm ci wàllum corruption maanaam wàllum guerre tentative de trafic migrant loolee doy na war yéen a kaay gi nee na lu jëm ci wàllum foo ci ab document administratif yéen a kaay gi de la turbine xëy dañu xibaar naan ñu am na juróom benn député yoo xam ne jamono ji ñoo ngi leen di tudd ci lu jëm ci wàllum trafic passeport diplomatique yéen a kaay gi nee na dina bëri ay député yoo xam ne ca kaso ba la ñu jëm ñi nga xam ne nag ñooy waa rëbës ñoo ngi aménagé seen chambre yi nga xam ne ñoom la ñu jagleel VIP yi maanaam chambre VIP yi daal ñoo ngi koy defar di xaar ñi nga xam ne ñooy député yi yéen a kaay gi am na ay manœuvre yoo xam ne gars yi ñoo ngi koy def ca assemblée nationale di wootante téléphone ci seen biir ngir nag ñu bañ a dindi immunité parlementaire député yi nga xam ne tudd nañu leen ci lu jëm ci wàllum trafic passeport diplomatique yéen kaay gi de l'observateur nee na en tout cas kilifa ak simo ñooñee mën nañu leen a tëj ba mu toll ci fukki ati kaso enquête yéen kaay nee na Thierno Diallo mi nga xam ne moo filmé kilifa am na tamit lu dox digganteem ak simo ba mu am ay traces yéen kaay gi na am na frère Thierno Diallo xam ne moom ak simo séq benn deal boo xam ne 3 millions 500 yéenekaay gi di Rewmi Quotidien Le Témoin Sud Quotidien ñu xëy fekk fa Amadou Hott ministre bi ñu dénk wàllum économie ak wàllum plan ak wàllum coopération muy wax ci wàllum pauvreté bi ci Sénégal nee na en tout cas maanaam ndóol gi wàññeeku na ci Sénégal yéenekaay gi di Vox Populi nee na ñi nga xam ne ñoo yëngatu ci lu jëm ci wàllum farine bi ñoom nee na ñu daal farine bi nag danañu ko yokk ngir nag dund ndax ñoom sonn nañu lool yéenekaay gi di La Soleil ñu xëy fekk fa Omar Gueye muy wax ci wàllum inondation yi ak wàllum plan ORSEC ak wàllum audit plan décennal ak nga xam ne jagleel nañ ko Touba mu toll si ñaar fukki milliards yéen kaay gii di Le Quotidien ñu xëy fekk fa Serigne Mboussobé Bousso bokk ci parti bi di APR nekk candidat ci élection yi ñu dëgmal ci mairie bu Kébémer daan na yëkk musiba ak mu Modou Diagne Fada nee na pagaay pëccxoo bi nga xam ne moo am ci Benno Bokk Yaakaar ci Kébémer loole lépp Modou Diagne Fada la ñu fekk ko ci yéen kaay gii di 24 heures mu daa di wax ne Modou Diagne Fada dafa bëgg a saboter maanaam bennoo nga xam ne Benno Bokk Yaakaar joxonte nañ ko loxo ngir nag élection yi nga xam ne moom la ñu dëgmal nee na Fada daf koo bëgg a kese ba pare nag ànd ak i partisan ma ngir nag xeex ki nga xam ne mooy Macky Sall moom Serigne bu Bousso nee na Modou Diagne Fada dafa am nag agenda caché ndax nag bëgg bëgg am mooy jël ay militants APR ngir nag ñu bokk ci parti bii di yeesal daat nay wax ne lu jëm nag ci Kébémer dañu ko fàtte ci programme yi nga xam ne état bu Sénégal teg na ko lu ci mel ni PUDC ak PUMA yéene kaay gi di réew mi ko di cee xëy duñu xibaar naan ñu tribunalum Ndakaaru niki démb toj na dafa am benn waay boo xam ne jaaji jeen lu tudd da doon bëgganteeg benn xale bu jigéen bu tudd Awa ñuy bëggante jaaji ne ko dama lay takk waaye nag li nga xam ne mooy may gu njëkk gi dafa des lu toll ci trois cent bëgg nga abal ma ko awa puy daal koy abal trois jaaji nag war a nag dem nag ñaan awa puy maanaam daal di yeexal di lambar-lambari di layaam-layaamal lekk xaalis ba ba bañ koo takk xale jigéen bi laaj ko xaalisama moom jaaji jen lànk ba tëdd sa wa ba nag jël ay vidéo daal ay image yoo xam ne moom ak xale bi ko envoyé nga xam ne nag mooy bi daan na koy wax ne yow sax waroon nga rus di filmer nga xam ne maanaam mooy ay vidéo yoo nekk ak aw puy journal bi ne na kookee nag magum jëmm la am na lu toll si juróom-ñett ci ay doom tëj nañ ko ñaari weeri kaso yéen kaay gi di esat xëy ci ligue des champions ak choc bi nga xam ne tey jii dina am diggante Liverpool ak Milan Inter ak Real Madrid yéen kaay gi di sunu làmb ñu xëy fekk fa Ama Baldé daan na yëkkatee kàddu ci combat bi xam ne moo war a dox digganteem ak Modou Lo nee na daal dina duma Modou Lo duma yoo xam ne duma yu leer nañ lay doon duma yoo xam ne